maa ngi sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci yonentem bu tedd bi muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di yeesal sunu njëbbal ak sunu taalibe ci maulana cheikh ahmadou bamba xaadim rasul abdullahi wa xadimi rasulihi di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfiix tey ñu dëkk am ay leeral tuuti rek yu ñu bëgg a def jëm ci seyxul xadim eh, ngir mu nekk ay laabire ak i ak ay doole doole wante ngir ku nekk mën cee jariñu rawat na Sénégal gi ñu nekk Sëriñ tubaa nag xaadim rasul li liñ ko yàggee waxee am na ci loo xam ne ñëpp xam nañ ko mooy kan fu mu dëkk muy Sénégal gii la gënee jamono Mbàkke Bawal en 1852 ci calendrier jant bi 1370 ci ati gàddaay gi ci wéru tam xarit té ñaar fukki fan ya ginaaw loolu tamit fi nit di baxo jaar ci njàng ci sahir yépp mu jaar fa waye ci diggante bu gatt dir bu gàtt ban ni nga xamé né dem na ba yor daara yi Mamour ante Sali ni fu wajurum jugee ak e, tambali gi mu tàmbali woon di woote li ñu tuddee at tajdiid yeesal sunna su bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon nasafatu kulli min allah bi taharat wa sunnatoo insha rabbi ubayyan mu woo ñu bari daal di taxawal li tuddee wooteem boobu mi ngi ko defoon ci mille trois cent un ci ati gi mooy mille huit cent quatre ci gàddaay gi booba mi ngi toll presque ci fanweeri at daanaka ak benn booba tamit ci la lépp tàmbali cong yi jóge ci lenn ci sëriñ si lenn ci ceddo yi lenn ci buur yi tubaab yi ñu ko soxoree yëpp rek ba léegi di suñu joon yàlla tey ji nga xam ne dara mos koo génn boobu la lépp tàmbali kon muy histoire boo xam ne loolu ñëpp xam nañ ko waaye nag sëñ Tuubaa dafa def effort boo xam ne euh, képp kuy doomu aadama war ngaa jéem a lijjanti effort boo mën cee sukkandiku dafa ñoo jox ndam loo xam ne kuy nit ku ñuul siggal na la te danga ko war a delloo njukkal rawat na kuy dund Sénégal waaw fa laysa yujibu sawaadal jismi safahatal fata aw suu al fahmi kenn du gis bayit bu mel noonu ak dogu gu mel noonu te Sëñ Tuubaa xaadim rasul weesuwul bawal gi bawal gi weesuwu ko di jàngi fenn xam-xam waaw weesuwul bawal gi weesuwul kër wajuru mu tedd wa Maam Mor Eh, ginnaaw loolu def na ay tournée dem na gànnaar ñaari yoon dem mu njëkk mooy coobareem mooy siyaare xabru gaa yu baax yi fa nekk ak fépp fu mu dégg ci réew mi ne nit ku baax fa mu dem fa jàll fa ndax yàlla bu la yitteelee il faut que ay nitam yitteel la loolu waroon sëriñ bi doon def ay tournée ci biir réew mi def ko ci réew yi nga xam ne ñoo wër Sénégal yëpp mu def ay tournée eh, ñiy dund mu leen dem ci ñoom jokkalante ñoom ña nga xam ne faatu na mu dem ci seen xabru ñaanal leen eh, ak ya ca aju ci réew mi te loolu mooy bi Maam Mor Anta Sali nelawee avant muy taxawal di woote wooteem bu mag boobu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax ne ko rabbi ashaabak bil himma wala turabbihim bi dars faqat na nga yar ñi ngay àndal ci alhimma moo yittewoo yàlla yittewoo lislaam waaye bu leen yar ci njàngale rek ay riwaaya waaw fal xilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nuurun mahad diraaya xam-xam du rek nettali kom nii gars yi def ni bindi téere yu bëree bëri yoo xam ne daanaka taxul adduna am jàmm taxul kenn nekk ci jàmm taxul kenn am njariñ taxul kenn ragal yàlla taxul kenn mën a def effort ci àddina nga xam dañuy bind bind ay bibliothèques yu fees dell ci àdduna tey réew moo dem fekk fa ay bibliothèques yoo xam lam def ci ay téere ay millions la waaye jëriñu dara sëñ bi nag jug ngir yar nit ñi ci ma moo tax ñi sëriñ bi yaroon defar leen ñuy euh, euh, seexu njëkk yi ñëpp daf leen a yar ci xam-xam yar leen ci jaamu yàlla màndal leen ci ñu nekk ay jaamu jaamukati yàlla guddi ak bëccëg amu ci kenn jëlal naa sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul waaye ñi sëriñ doon yar amu ci kenn ku mas a xëy ci àddina seen yitte yëpp dañ ko defoon ci jaamu yàlla liggéeyal yàlla waaye liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ tubaa jëlal naa ko muy première fondation bu njëkk bi sëriñ bi diir bi nga xam ne def na ko ci ci di ci diggante bi muy jàng lu gàtt noonu waaye teewul yàlla may ko mu taalif ci xam-xam loo xam ne amul lu ko gën a leer ci àddina sëñ tubaab bañ na ko ba xadis bu ñuy sikki sàkk sax du ko andi boo demee ci téere mi xadis yi nga fay fekk yépp day wér mooy la ñu wéral ci téere Buxaari ak Muslim waaw imaamul Buxaari ak imaam Muslim xadis yi wér doo nga la andi bépp masala boo xam ne borom xam ne dañ caa nekk ay ixtilaaf yoo xam ne kenn mun leen a dajale sëriñ bi nekkul ci ixtilaaf yooyu daf caa génn dafa bind lu complété nga xam ne ku ne mën na koo jariñoo bu ñuy seet ku modest mooy sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ku matale koo xam ne amul faiblesse maanaam amul benn point bu faible sëñ Tuubaa benn point xanaa caay caay saay si ak ñi nga xam ne dañoo ñàkk tawféexu sunu borom ñàkk yërmaande suñu borom adduna jay leen seytaane jay leen ñoom ñooy jéem am lu ñu sikk ci moom ak lu ñuy jéem a toléré ci sëñ Tuubaa ak di ko jéem a euh, woyefal ngir nit ñooñu ñooñu la dal waaye sëñ Tuubaa amul faiblesse ci genn wet koo xam ne bawal nga jànge génnoo bawal eh, nga jël benn poñ masalan ci tagg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi fi yonent bi nekkee ñam ñam jamonoonte ñëpp ba ni mu fi jógee lu ñu daan wax ci tagg rasulillahi bi abi wa ummi rek ngay dégg bi abi wa ummi mais suñ tubaa façon bi mu doon tagg rasulillahi pédagogie boobu kenn musu ko cee fekk kenn musu ko fi indi tamit avant mu fi ñëw te kenn dootu ko indi ñi tagg rasulillahi yëpp li ñu ko tagg lépp boo ko dajalee motul une tonne ci loxatul arabia waaw Sëriñ Tuubaa li mu tagg yonent mat na une tonne boo ko doon peese ci kalaamal arab te génnul bawal génnul bawal ci façon taggin boo xam ne tamit ndax euh, dafa weesu làmmiñ ndax nit dana tagg yonent bi nga xam ne kii li muy wax ci làmmiñu la nekk mais daf koo weesu moo taxoon mu ne wa fi madhihi jaawasu kahban wa mooy tagg rasul am yow boo ko déggee li muy wax wala bayit yi muy bind da nga yëg ni kii ci xol bi la jógee maanaam xaal bi dafa jaxasoo ak ruuxam jaxasoo ak deretam ba yow mi koy jàng bu fekkee da koy jàng te moo genn coxor maanaam sunu borom nëbbu la yërmandeem te leeru yàlla wala leeru ngëm mi ci sa xol da nga nangu li Sëñ Tuubaa di wax te danga xam ne kii amul moroom moo tax mu wax ne mulkul xali baaxil xadim jaxalani asnal xadim liman lahu fadlun yadum wasaani ni fil xidami waaye yi mu ci tagg rasulillahi muy mu tagg alquran def ci ay diwaan yoo xam ne kenn mus ko tagge noonu Sëñ Tuubaa ngay fekk ci alquran muy tagge noonu alquran yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili ak yeneen waaw mu wa xalil wa habib lii mux ni li an tabib bihi yuhibu ni labib yatlubu xayral aqami huwa sifa min kulli liman alay ihtamada wa man aba turida saa xasrida wa nadami dafa bari nga na xass gu mu bind rek ca dara ñaan ba wala ca njëlbeen wala ca mujju ba tag na ci alquran tagin yo xamne da nga na ki da fay dund alquran daf koy noyyi euh bokku ci tamit mu bindat ay yenen xass yoo xam ne comme diwan yo xamne euh alquran yëpp muy 6236 aya yi ñapp ne mom la alquran doon serigne bi aya bu nek mu way ko aw bayit ñu tudde ko qur'ani muqayyada bi ayatul quran nga xam ne téere bu rëy la lépp alquran la ci tàgg sëñ Tuubaa ko njëkk def moo ko mujj def keneen mënu ko waaye mu binaat beneen tamit tuddee ko mu xëyada bi xëyri ayatul quran mu nekkat beneen diwaan bu mag nga xam ne ci tàgg alquran def na ci loo xam ne kenn mësu àddina kenn mënu ko te moom ji lépp fi la ko defee bawal xam ñi nga xam ne dañuy wër université yi ne ci àdduna fu nañu dugg fa ñu defal leen ay doctorat tuddee leen ay maître ay nangam nangam khas de gumar sax mën ñu def bo xamné lepp ñu amul luñ ci sens seigne touba kenn musu ko topal bi ñu bind xas de yoy kenn munu ci gëna tan ba aduna tukki ba jant bi fin fi ba wasan su mustaqarin laha kenn du genn ak fot ci li seigne touba bind ci khasida fot amut ci nahwu ci luxa ci harot ci bayat ci bayan ci sarf ci maana fu mëna doon ci adab kenn du ko genné te jamon bi bind lolu moy yi manki won tamit dimu wuton comme léegi nim mu ni nga xam ne ay machine nga yor man nga to fi bind léegi ab téré déedéet sëñ tubaa kenn mus may kayit ba nga may ko da ba nga jox ko khalima touba bi biñ ko jëlé fi en 1895 yobuko ci géej gi ba 1902 ñu yobuko ko 1903 1907 Ceyeen Jolof 1912 Njaaréem ba 1927 kenn Musko dimbalé kayit ba xalima ba da té lepp ci loxo touba bi nekkon lu mat 30 ans toa bi jël ko mu nek prisonnier tubaab bi musuñu koy dimbalé dara ci wet gogou ba nopp mu bind lim bind boole ko coono bi ñu ko doon tek nga xamné ne adama aadama France Inter def na ben tracé bi señ bi jaar señ Touba Khadim Rasoul bi ko bi jëlé fi yobuko ba fi ba Gabon euh, euh, mais ba fi may waxee télé sénégalais yi jëlagul décision def document bobu manan tambalé fi ñu jëlee suñ fi amu xey Touba xaratu yow sabti asli qimati muxtaari fi saxri safar Mbacke Bari ba ni mu demee Louga ba ni mu demee euh, Ndar ba nu mu demee Dak Dakar ba niñ ko yóbboo ci géej gi mu dem ci mbooleem île yooyu ba Congo ba fépp dellusiwaat tracé boobu télé Sénégal yi ngeen heure waroon nañ ko jël def ko bu dee ñoom cërub ngor mi ngi ci ñoom bu dee nit ku ñuul ki ñu wooyee mi ngi ci ñoom parce que suñ tubaab dafa def wëluur woo xam ne lu jara lu jara jàngale la lu jara xamle la bu nee ba tubaab yi ñoom jël seeni matukaay def ko te tubaab bi tracé boobu noonu ñu doon def mooy jële ko fii ak fi ñu ko jaarale mu ne su ko def nit kase muy dund loolu il faut ñu bàyyi ko xel maanaam nit kase kase mënut a dund loolu ko def muy dund wala mu nekk nit mënut a nekk day faatu nit attanu ko euh, moo tax euh, tubaab bi ku leen mës a jaaxal dañ defal benn tracé ci yoon wi ngay faatu boo tàmbalee faatu ñii duñ leen jotee defal tracé mais jële nit fi mu dëkk ci moment boo xamee ne booba amul benn yorul moom képp. nit koo xam ne ca yooyu jamono sëñ bi pesewul quarante kilo ay bagages moo koy ŋàbbal boppam ñu defal ko tracé yóbbu ko fii ba Congo Gabon ñu war ko il yooyu yëpp mu del siwaat ci jàmm xureekuwut yére bu xottikuwut kaala gi sansiwut lam doon wax lay wax lam doon bind lay bind lam doon jëf lay jëf dogu gam amoon moom la am ba tey ngëm-ngëm amoon la am loolu kooku nit naturellement nii nit mënu ko waaw mënu ko kenn kenn attanu ko te tracé boobu noonu ba fii may waxee télé Sénégal yi dafa guñ ko te télé Sénégal yi dañuy woote woon ne ay murid lañ wala ñu woote woon ne fu ñu a bokk waaye dañuy woote woon ñu nit ñu ñuul lañ lu tee ñu def tracé boobu document boobu jàngale ko fi tubaab jaar ak sëñ bi fi yóbbu ay archives nationales la yoo xam ne boo demee France fekk ko fa fu bëri bëri ci yeneen réew ci adduna bi waaye it di nekk Sénégal fa tàmmoon dem RTS ñu jox leen yenn ci document yi nga xam ne tubaab bi bind nañ ko ñoom ñoo ñoom ñu ko yoroon ñoo ko bind jërul sax ngay dem ci li murid di bind li tubaab bi bindal seen bopp ñoom ñi nga xam ne ñoom mbir la leen arrangé lañu bind waaye yañ bind nga xam ne ñu ko ñàkk bind ndax yàlla suy dooleel nit li muy defal nit nit du ci man dara danga ko def par force yàlla lépp lu muy def taw xan wa kar xan la bu la neexee da nga ko def bu la naqaree da nga ko def mais tracé boobu tubaab bi àgg nañ ci sëñ bi buñ ko yóbboo Gabon bu ñu xëyee suba ak li muy tuuti tuuti ak bagaasam yooyu dañ koy booleeg benn kuréel de militaire woo ay militaire xam ngeen militaire yéen fii ñu jaar ci tàggatu nga dem ba doon militaire ñu boolaay nit ku tuuti ne la sànk ko xam ngeen montagne yi nekk foofu noonu foofu ca Gabon montagne yooyu jamono ji sax nit mënu faa yéeg moom kase te même ca jamono yooyu ay mille huit cent dix-huit mille huit cent quatre vingt dix ñu ñu jël ni ko tolloon boole ko kuréelu militaire na sànq leen ko ñu koy jaaral ci montagne yooyu jamono waxuma la euh, waxuma la luy màtte waaye waxuma la euh, euh, weñ waaye bant képp bu la masaana jam foofa tooke la nit attanu ko tubaab bi xamoon nañ loolu ñu jox ko xëy jox ko militaire ne leen sànq leen ko ñu dem di ko sànq dañuy dem bu ñu xëyee ba ngoon jot moom montagne yi di ko wàcc di ko maltraité sëñ bi ànd ak ñoom te sëñ te bañ ñu koy yégal ci montagne yu kawe ak di ko wàcc mu boole ko bagage mi boole ko di bind suñu su militaires yi xëyee ba ngoon jot kuréel boobu équipe boobu ñu delloo si sëñ bi mu ne bu buñ xëyee su ñu ñu jëlaat beneen kuréelu militaire nee sànkaat leen ko bu mu dund fexe leen ba bu leen su ñu di dellu siwaat bu mu ëndaale bakkan loola loola tubaab bi doon wax ca yooyu jamono kuréelu militaire bu ñu jox sëñ Tuubaa naan ko bu mu delloo si bakkan militaire bool ko seen sàngara si seen yàmbaay yi seen yëpp di ko buusi ci kawam jëfi caay-caay yi gën a bon ñu koy def boole ko di ko yëgal ci montagne yooyu nga xam ne muy dox ci foo xam ne désert bi euh, maanaam xeer yi bu la laalee tooke la weñ yi bu la laalee tooke la bant yi bu la laalee tooke la jëleel naa a fa nekk nga xam ne bu ñu la màttee moo ay virus lay def sa yaram yoo xam ne mën nga faa jógee mara day taali sëñ bi bu xëyee ànd ak kuréelu militaire yooyu ba ba ngoon jot ñu si delloosiwaat ko ne mënuñ ci moom dara bu ñu xëyee suba boole ba neen loolu tracé boobu sëñ bi def na ko te tubaab yi loolu lañ ci jublu woon mais encore li bëggoon wax ba tey ba fi may waxee mooy rajo yi nekk Sénégal wala télévision yi ba tey amaguñ pas-pasub def loolu ndax lan maanaam ragal ay wujje ak ay ragal ay féete ak ñiyaatoon mais nit bu defee effort bi effort am pour yow kàttanal la pour yow nga dëgëral la pour yow nga nekk yow attunoo sax def benn dara ci histoire mais da seet loolu mais nag yàlla Sëñ Tuubaa dafa waxoon lu am solo boo demee ci minanul baaxil xadim bu Cheikh Mahamadul Bachir dana ko ina sapa sinina allati makastuha fi kongo ma dahat wa zayadaru zalika yawma la sarair juróom ñaar ay ma sax ca kongo sankul sankul mais lolu sunu borom dana ko bis bami feñal feeñal muy allu yamal xiyamatul akbar mais liko yalla jotta feñal ci adina muy ay victoire yo xamni doom doomu yep tek nañ seen beut ken munu ko dindi ken muy fi senegal muy benen rew mais dafa jot nag nit ñi xam seigne touba parce que limu bind ci xam-xam waxna ko jangale xam-xam li gën a leer ci xam-xam nga xam ne amul sikki sàkk moom la suñ tubaab bind tàmbaleel jawharu eh, tasawuru sixaar mu lay nu sudóor mu nawi nu sudóor masaalikul jinaan bi jàngale ci wàllu tasawuf ak nit ki ni mel ni ñu doomu adama ni ñu koy defare tarbiya demal maxaaliqu niiraan demal eh, eh, jawharu nafis demal demal demal nga xam ne téere yu yëpp demal naxju xasaayil xaaj te téere bu ne nam koy taalifee doo gis téere bu ne mel maanaam li muy bind amul benn téere bu ñu wax ci àdduna nga dem fa gis mu mbind mu mel noonu demal ci tagg saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmahin wala muy wax seen histoire mooy trois cent treize yi nga xam ne ñoo doon xare badar sëriñ bi bind leen ci genn xasida toftale leen par kenn ku kum ci jël da nga yaakaar dafa jàkkaarloo ak moom téere bu mel noonu amul amul ci bibliothèque benn téere booy jàng ci àdduna fekk fa ñu rancé dafa trois cent treize yi doon xare badar benn ba fi mu yem tudd seeni tur ak seeni melokaan ak seeni jaaruwaay sëñ Tuubaa kenn mësu koo gis téere bu la wàllu yar ak maanaam teggiin ami teggiin ak worma bu mel ni nax ju xadaayal xaaj leera noonu ndax nax ju xadaayal xaaj la fa nekk soo ko bëggoon a jàng tey fu bukk teg nax ju bibliothèque bu ne da fa dem téere bu ne ko ubbi mais nga ubbi benn téere fekk ci mu mate noonu sëñ Tuubaa moo ko mas a def ci téere benn téere buy jàngale yar nga fekk mu complété nii nax ju xadaayal xaaj complété amul asmau ahli badrin muy jàngale saxaaba yi àndoona rasulullahi doon xare badar doo dem ci benn téere fekk mu complété noonu da ngay dem fee ke lim fukk kee lim ñaar kee lim ñett ngay jàng téere yu bëri te du complété nga ñëw jàng benn téere mu complété loolu nga dem ci masalik nit mooy téere woon da nga koy jàng yow gis sa bopp xam li ci sa bopp yaay kan xam fi nga nekk yow kooku ci masalik ko jënaan la ne te yooyu bi mu koy bind li ma wax dafa ànd ak ñu téye ko amul temps boole ko ay jaamu yàlla ñu diis yoo xam ne mu ne su ko misaal boole ko tubaab bi ko yàlla boole ñu koy natt guddeeg bëccëg yëpp waaye tey Sénégal àgg nañ foo xam ne euh, foo xam ne dañ àgg nañ ba dem nañ ba ci bu ñu waxtaanee suñ tubaa sax dañuy bëgg di ko équilibrer ak di ko jéem a wàññi ngir ñeneen mën koo dégg déedéet complexe bi am léegi nga xam ne léegi ñu bari wahabis yi mooy ibaadu rahmaan yooyu seeni wax ak seeni melokaan dafa jeexital ñu bari ci nit ñi léegi ba sax pour ñu wax may sëñ Tuubaa yi wala effort bi mu def da gis ku koy waxtaane sax di ko jéem a tolloole ci xel ak naan da koy jéem a limité ci xam-xam bi mu jàng moom bi mu jàpp ne xam-xam la arab yi mu jàng wala téere yam liir nga xam ne ay a ko def ñu solul tubay mu mu jël ko bëgg koo jàngate sëñ Tuubaa wala mu bëgg a équilibre sëñ Tuubaa ci loolu ngir bëgg am ñu ko mën a dégg am na tey ñu bari bu ñu wax dañu bàyyi xel ibadu rahmaan yi wala wahabiste yi comme salafiste yi ngir bëgg ñu dégg fi ñu waxee ngir lan am nañ ci ñoom ay xarit wala ay soppi wala ay copain ñàkk ñàkk jom ñàkk jom nga gis koo xam ne araab yi mu jàng moo xam Arabie Saoudite la jàng wala Tunisie wala Maroc wala Algérie wala Égypte bu ñëwee nag loolu mu jàng ci ay téere nga xam ne ko liir nag ci lay bëgg a jël di ci natt Sëñ tubaa fee ñu ne ko yow doo murit buy daanu amul kenn ci àdduna ku daanuwul jël ak pour mu leer koo gis am na ci mu daanu jël ñi jàng arab kese ci téere yooyu arab yooyu moo leen daaneel jël parce que ci leen daanoo jël ba lépp lu ñu gisate ci ñu koy jëm a natt même li ñu jàng ci téere arab yooyu ñu jànge Caire wala ñu jànge ko Algérie wala ñu jànge ko Tunisie wala ñu jànge ko Maroc wala ñu jànge ko Arabie Saoudite mooy saoudiens yi arab yooyu mu jàng téere yooyu ak ña ko doon jàngal borom sikki nuy sëq yooyu noonu weex tàll wala ñu def benn kaala benn koppate bu xonk nii ñooña ci la daanu jël ba lañ ko jàngal la gën a gëm nga xam ne ci lay jël ci jéem a natt mbirum Sëñ Tuubaa wala mu ko ci jéem a équilibré su fee di dal ci kaw ñi daanu jël wala ñi nekk la kéemaan Sëñ Tuubaa yi wala xeet yooyu ngir lan ñu ne ko da nga am xam-xam wala yow da ngaa eh, eh, nite déedéet dof la dof nit ndof mi ngi tàmbalee ci yem ci nga bàyyi sa culture yow xam-xam da nga koy jàng waaye boo ko jàngee bu sa culture bi nga doon dund nag sa ressource bi nga yoroon waru caa yàq dara xam nga xam-xam lu jariñ mooy ni nga jaamoo yàlla mu tege ci ni ko yonent bi jàngalee alquran waaye nag jël effort bu Sëñ Tuubaa def wala bu ma waxee nii ñoom diw sàngam buñ ko dégg wala ñoom samay xarit lañ wala damaa masoon nekk ñoom école sàngam doon jàng wala damaa xamante ñoom di dem ci seen xewee seen ngénte yeeg seen sarax yeeg seen dëj yi tax léegi nga bëgg a équilibrer Sëñ ba bu fonux ba bu fonux ah wala ngeen jëm a kaasal te mbooleem ñiy def yooyu yëpp nag bu ibaadu rahmaani waabisi di sànn xeer yoonu murit doo dégg ñu wax dañuy noppi rek nag waaye saa boo jugee na léegi yaa ngi tontu ñooñu ñaan déedéet Sëñ Tuubaa nee na falaatu haado man raytum faax loolu da ko gën a jàng kenn ñàkk jom weesuwut ngay natt Sëñ Tuubaa ci ab téere boo jàng bu la am naar jagal wala boo jàng ci ab ñàkk jom foofu la fa yam ñàkk kers weesuwut sëñ tubaa li mu daj pour l'islam taxaw li ko diine jaral nga ñëw ne yaa ngi koy natt ngir di wàññi sax lenn ci ay karaamaam wala di ko bañ a waxal lenn ci ay karaamaam da ngeen a mën a jàng-jàng ba jàng lu seen maam ak seen bàyyi jàngutoon ñii fi dégg ñëpp tey ñuy wax te jéem a natt sëñ tubaa ci yooyu seeni bàyyi leen raw seeni bàyyi seeni maama leen raw te ñoom ñëpp dañoo mosoon wamatu ci ginnaaw sëñ tubaa te ñoom lañ doon bind ci sëñ tubaa kenn mosu ko bind te loo fiy jàng dañ koo xam jëlal Cheikh Ibrahima Diop almashar yi mën naa jàngal ñi jàngal gaa yi fop te lim bind Sëñ Tuubaa tey ñii di wax ñi kenn ñi mu ko wax kenn ñi mu ko waaye sax ci Sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima yu almashar yi euh, sëñ ma joojoo paxa gis ngeen ko moom tamit mbooleem lu téere bu ma sa nekk ci àdduna ñu koy jàng ci xam-xam da koo mokkaloon nga xam ne buñ bu raaxoon mën na koo bind mu toll na jox boppam Sëñ Tuubaa teg na li xam-xam ba womatu nekkum murit way salli moo taslima ci la lépp di ñëwee señ bay jaxate bo de woote xam-xam wala ngay wote ragal yalla wala wala wala dëddu ci aduna ci señ bay jax la yam koo xam ne musta ñi meew sigg xol jigen ben yoon la ko massa def te doomi bàjjanoo da ko bet muy bind bam ne kulli yam ci mom dafa wut xorom ak ndox ak suuf diko bomb ci beuri ba beuri xonk cur mu ne na xisaab boppam balaa yemal xiyam yalla ko hisab ko xamne ay talibem mom señ bay jaxate buñu massa dox ci ab di indi ay an ci tool yi ba seen nit luy niroog jigéen dañuy jàdd ci mbooy gi waaf diir boo xam ne leer nañ lañ seenoon jàll na ñu door a jug kooku noonu la doon yare ay taalibeem mu tourné jox boppam suñ tubaa bi na ci suñ loo xam ne tey boo ko waxoon ci ak rajo ñëpp dar seen gémmiñ teew boo ko waxee ñu ne yaa ngi bokkaal wala yaa ngi def nangam te bu dee ragal yàlla ngay jaay jaamu yàlla ngay jaay ñii di wax ñëpp tey ci jamono ji ci siècle bi ñu nekk muy ñaar fukkeel siècle bi ak ñaar fukkeel siècle ak benn bi li ko dara 1901 ba 19 ba ba ba 2000 ba premier euh, ci ñu nekk ci euh, euh, vingtième siècle ci ñaar fukki at yi ñi fi dégg ñuy wax ñëpp kenn dàq fee jaamu yàlla sëñ bay jaxate baa nga dàq ko julli baa nga dàq koo woor baa nga ëpp ko xam-xam sëñ jo ma sori noonu sëñ ma jojo paxa noonu kanee noonu kanee noonu maanaam ñoom ñi di wax ñëpp yow mi jamono te ñoom sax ñom defuñ ci diine ju lo fi deful ñu la julli la wor dakku ñu la jaam dakku ñu la saraxe xam nga la dak jang ay wax ak ay werante ci ay téré ay masala yo xamné lepp la wax sa xalaat téré yépp da ay wax sa xalaat la ben nar bu tok am jot rek xaalis bu wër ko am ñuko doole mu tok di waxee xalaatam rek mu dem ci ab université ñu nax ko jangal ko lolu mu ñew nak mom day interpréter seigne touba ci nim jangé ci téré yoyu te ñaan diw ak bari xam-xam diw ak nangam dangay ngay sa bopp yow nga jàng na nga xam sëñ Tuubaa nga xam yow da nga koo gis sa kanam mu def mu daj li mu daj ngir diine ngir effort wax moom wax ko bind ko wàcc ko fi bind ay téere ay xasida wàcc ko fi am na ñu bari tey buñ doon yor xasida buñ séenee seen mbokkum ibaadu rahma wala wahabis dañ koy làq wala bu ñëgee ñi ngi ñëw ñu làq seen téere yooyu noonu ngir bañ ngir bañ yaakaar ne dañu am kersa seen kanam yu mel noonu seen page facebook sa wala seen seen whatsapp tay nañ ci bind seigne touba sax far wala ñu tuddu tur wi ngir di garder ay intérêt yo xamne mi ngi jóge ci ibadu yoy wala wahabis yooyu ñàkk tawfiix ñàkk yërmande sunu borom kep yu bari non la dang koy gis ko xamne fim nit tire yim jang ci rew yoy wala mu jàngee ko feneen mom lay jël ngir diko interpréter seigne bi man diko jangate seigne bi ak di jël seigne touba diko jema nan da koy jema régler ci xel mi wala ci tire yoy mu jang ngir lan am ñu mu xaritool ci kuréel yi ma wax te kuréel yooyu ku ne xam na ne waxtu wu nekk ñuy jël baat yi gën a ñagas ya gën a bon di ko teg ci kaw deru sëñ bi te doo diggu bind ci wala ñu ci dañuy bàyyi noonu rek waaye yow nag soo bindee ci kuréel yooyu nag ñoom ñëpp ñu jël seen xalima nag di gaar waaleeg def ay signal ak fii loo boo fi boo signal nit ñi xam nañ ko ñu ñëpp ay senegal lañ signal boo jàdd rek xam nañ ko mais seigne touba effort bu mu def xam nga 2017 bi mi doora tambali digënté 2016 2017 Ibrahima Khalil Lo euh, euh, astaghfirullah euh, Ahmad Lo Safir fay mi yor sen kàddu ñom dañu jëloon ben portale seigne touba khadim rasul muy photo jël juma ji dugal ko fa coow li bari ñu laaj Ahmad Lo mom ci làmmiñu bop mo wax mune mom biñ ko laajee buñ ko laajoon xalaatam buñ ci dugal photo sëñ Tuubaa ci ci ci seen asasa boobu mooy daaru istiqaama ak seen paas boobu noonu am nañ paas mu ne buñ ko laajoon duñ fa dugal sëñ Tuubaa duñ fa dugal photo jumaa ji comme nañ ko faa xas dugal bañ ko fa dugalee ba noppi tam ko laajee xalaatam mu ne dafa wax ne nañ ko génne mu ne ndax nit ñooñu ñun lay waxal ñun murid yi comme sañ tubaa ak murid yi mu am taalibe yi mu ne ndax nit ñooñu la ñuy dund bokkut ak ak moom Ahmadu Lo ak i gaayam wahabis yi li ñuy dund mu ne ndax moom dafay dund sunna daana na nag ñun suñ téere yi mooy téere yi suñ tubaa def ndax moo fi defi téere mu ne doo gis lenn koy contre noonu la ko Ahmad loo waxee loolu waxi boppam lu ko nettali waaye ba mu waxee ba jeexal Safir Fay ne ko man Touba laa dëkk fa laa juddoo waaye damaa dem ba ba ma bëggee sama diine damaa génn Touba dem Safir Fay nee na pour xam moom Xaadim Fay la tudd suñ Touba lañ ko tuddee mu soppi turam tudde Safir mu ne léegi moom dafa jóge Touba daw pour mën na rawale diineem donte ay maamam ak baayam li suñ Touba dund dund lañu dund mais moom dafa dem Dakar pour rawale diineem mais naka la nit ci xel jugé Touba dem Dakar dara wala sa diiné lolou mané nek manam ku gaday nga né dara ngay Touba pour mëna dem Dakar pour rawale sa diiné Dakar dem diiné fa nek kon amna na ya quelque chose lu xew mais Safir Faye mo wax lolou ci mujjentelu wax ji né mom Touba la nekkoon waye ba demee ba gis né lim bëgg mun ko fee dund dafa dafa gaday baatu gaday la jëfëndiko dafa gaday Touba pour mëna a rawale diineem nee mais xoolal kooku bët bi mu ñuy xool te moo ne léegi day duggaat Touba nag dafay duggaat am na fa ay xarit am na fa ay gaayen dafay dugg dina indil ay ay ay ay quelque xaalis nii tuuti moyen moni bi tuuti dafay ñëw di ko fendi am na fay xarit dafay ñëw ay ngénte yooyu ñoom set te moo waxoon lii dañu ko bàyyi mais nag Sëñ Tuubaa ni ko yàlla maye mooy boo fi nekkee di ko xeex koo xam ne yow dem nga ba attunoo photo Sëñ Tuubaa te yow sa mu asasa boobu muy daaru istiqaama seen paas boo fa demee da nga fay fekk Ahmad Lo photom fekk fa foto yooyu yëpp ba ci ibaadu yu waaye di seeni i photo mais yow nga ne attanoo ci photo Sëñ Tuubaa te yow say photo ma ëpp na fa téeméer say vidéo ëpp fa téeméer nga nekk ci àll bi di foto ay pël di foto ay booli macaron ay boole buleet ay teen ay morso ba nopp ne yow foto Sëñ Tuubaa mënoo koo dugal ci sab site mais da seet soxor gu toll nii mais lan la te loolu Ahmadou ko def moom moo ko wax moo ne ma bu ko tàgg woon duñ ko ci def te bañ ko ci defee ba nag bañ ko tàggoo dana nañ ko dindi Ibrahima Khalil Lo am na ci ay kaset bu ngeen na fekk mu wax ne senegal booba sëñ Saliou woo fi nekk sëriñ Saliou mu ne doo dégg mukk kaay leen julli kaay leen bàccal ma rek ngay dégg ak kaay leen roojal ma mais xoolal kalaama yu ñaaw yooyu ci ay nit yu dëkk senegal say waajur di ñu tedd lu ñu baax nekkoon ci sëriñ bi say maam waxi noppi ëppoon la xam-xam dàq laa jaamu yàlla dàq laa def teewul ñu ànd ak sëñ xam nañu ne kii moom nitu yàlla la ku yàlla may la gis nañ ne sëñ Tuubaa effort bu mu def ngir diine kenn mësu ko def doo ko doo ko gis ci taarix ku ko gis danga naan bis diw sàngam ñu natt ko ñu xool nit ñi am nañu xel am nañu bët dofuñu effort bi sëñ Tuubaa def ci diine amul ci nit ñi ku ko mën a def li ko diine sëñ Tuubaa mësta xëy ngir lu mu lekk baa lu mu naan baa lu mu sol baa lu mu dundee ci àdduna xam lu mu daan xëy ci tawxiid ci fiq ci tasawuf yàlla yonente bi diir bi mu fi nekkee ba nim fi jógee loolu ci la ma a xëy mas a ci la neen te léegi boo ko bëggee waxtaanee ci noonu ñu ne la déedéet mu dem ci yoon woowu ba yàlla jox ko nag may ko waaye gis nga la Ahmad loo doon bañ am na tey xam nga ñoom ñi bi ñu fi jógee Sénégal en mille neuf cent soixante dix neuf mille neuf cent soixante quinze dem jàngi saxonde ya ak kuréel yooyu ñu àndal ñooñu yëpp ba ñu demee saxonde mën na ñoo na tasaare njàngum Sayxul Xadim waaye déedéet dañ ko contrôle Jangan fa ba bind fa ay téré tudde ko taqdisul asxaas dal ci wa tasawuf lu ne ñu wax ko ca té téré bobu ku na xamna ne xaalis tax ñu bind ko mais pourquoi mu jangal won seigne touba fof seigne touba li mu bind ci alcorane koko wané nga wan ko borom xel nit ku dara jotut ko xamna manam setan amul ci mom wal iman tawhid mi ngi dox ci xolam nga wan ko li seigne touba tag rasulullah tagu ko alcorane ak liko yalla jaralon histoire fi ko touba bi jang koko wax mu nangu mais ñom bañu demee dañu bañ lola dañu dem rek wan naa ne Sénégal ay yéefar lañ ay bokkaalekat la ay nangam nangam te li ñuy waxal Sénégal yëpp mu nga ci mu ci réew yi fa la fekk baax mbooleem li ñu dal ci kaw Sénégalais wala comme ci yoonu murid yi yeneen tarixa yi fi nekk luñ leen mën a wax rek ma nga ci réew yéen jànge ñoom dafa mil jikko buñ mën a wax ci Sénégal rek lu tey ñoom yooyu ñuy wax lu ci la te boo delloo ci réew yooyu ñu jànge woon ba tax ñuy wax yooyu yaa ngi fay fekk ay ton ci loolu mais ñoom mu ñu muñ tàngaa mais nag sëñ Tuubaa comme yàlla koo may yooyu yëpp fi mu ne tey euh, ñi ngi sant bu baax sëñ euh, jawrin si soxo euh, ak sëñ Samba ñooñu ñi ngi France sëñ Samba dafa wax ne dafa jóge fii bëkk démbu bi mu delloo France mu dem ci benn jàkk boo xam ne ay naara fa nekk ay ibaadu maanaam noonu la mën a tudde xam nga wahabis dafay ñaari façon wahabis ñi nga xam ne dañoo nekkoon cosaan bi Muhammad ibnu ah, Abdullah woote en mille euh, sept cent quarante cinq ñoo ko wuyu woon ay naar comme moom di ay mbokkam ñooy ñooy wahabist nga xam dañ bu noon ween dañ koo nàmp mutawahiboon yi nag mooy ñi nga xam ne Sénégal gi lañ fekk baax wala ci réew yi nga xam ne mosuñu koo doon dañoo dem jàngi rek ñu nax leen wala xaalis mu leen ko def ñu tuddoon al mutawahiboona wala ko xam da ngaa jóge fii dem Arabie Saoudite jàngi ñëw ñu ne la sosol association jox la aw tur nga tudd ko jamaatu ibadu ibadu rahman comme ni ñu def ñoom wala ata jamu diinul islami comme ni ñu wute seen tur yi wala waa alfalaax yii nga xam ñoo nekk université nga xam ne ñoom seen baax bu mag ba ma nga ca saxoodiya nga xam ne lool moo la indi ci loolu xam nga ñun daanaka duñ dara ay toppe lañ ay toppe maanaam ña ngay topp du leen dab léegi nag ki nga xam ne mbir mi da ko doon ca cosaan moom tax dana am lu mu nangoo loo xam dana ko nangu te yow doo ko nangu fi mu ne xatal gi nga seen ñu koy xatal diine yëpp mooy ñi nga xam ne bukku woon ci alwahabi dañ faa ngir alal dañ faa walisiyaan ngir bañ seeni mbokk ngir bañ seeni dëkkandoo ngir bañ seeni kilifa yi réew ñu tuddee almutawahiboona képp ku nekk sénégal nag wala mali wala niger wala burkina faso wala côte d'ivoire wala faneen ak faneen dem ne ab ibadu wala yeneen kuréel nga bokk maanaam doo wahabi aslan dañ caa dugal sa bopp moo tax doo leen dab léegi nag jàkk ji wax mi ngi france orly ñoom bi ñu defaree seen benn calendrier ba noppi calendrier jullikaay boo xam ne douze weer yëpp ci nekk inna iddata soor hindal isna asa saran nga xam ne waxtu julli yëpp ci nekk moom la sëñ Sam moom dam fekk ko fa dañ ko defal ay paas weer wu nekk ñu boole ko benn foto jumaa ñu seet ci àdduna bi fukki jumaa ak ñaar fukki jàkk ak ñaar yi nga xam ne mooy sëñ Tuubaa bu fekkente ne da dangay liggéeyal diine te nangu ko boole ci mbir yi liggéey ba doxut la ngay wax du dëgg képp ku ngeen dégg muy woote ne lislaam lay lay lay xeexal ba noppi bañ sëñ tubaa wala sëñ tubaa neexu ko la muy wax ay foo la ay nar képp la ay fen du dara képp ku ngeen gis muy woote woo lislaam wala muy wootee jàngale diine wala muy woote woo xam-xam wala muy woote woo yewu ba noppi ne dafay bàyyi sëñ tubaa wala sëñ tubaa neexu wala booliwu ko ci booliwu ko ci première ci mbir ma mi def kàcc kese lay def ab compte lay dox compte këpp ci lay dox yorul diine amul leen day wax rek mais ñoom bi ñu defee seen calendrier bon la Ahmad Lo doon bañ mooy photo Touba ak photo Sëñ Touba ci association boobu mu jiite mu ko doon bañ te ci waxtu woo xamee ne ay ay ay ay ay ay ay ay ay photo yi buleet ak ceebu jën ak ndawal ak yooyu ma nga ca ma nga ca association ba ak photo moom ak photo Xalil Lo ñoom ñi ñëpp seen kuréel nga fa waxtu wooyu bañ loolu seen moroom yi nga xam ne ay wahabi lan original nga xam ne ay naar képp lañ xamuñ sax luy luy làkk wolof ñoom bi ñu defaree seen calendrier jullikaay bi nag photo suñ tubaa la jël na ko ca dàgg waaw ma waa xiitu salaat boobu nekk foofu ca ordre juma ja fa nekk boo dee nag fay fekk am na ñu am calendrier bi bi mu koy ne ma xool ko gis photo tubaa ñu am seen première passe janvier photo suñ tubaa lañ def moo ne ci première calendrier bi photo juma tubaa calendrier kay boobu noonu nga xam ñoom ñoo ko defal seen bopp ay nit ñu xonk curru nga xam ne ñoom gëmuñ xeet yu bari ci aaday Sénégal yi xamuñ ko gëmuñ ko sax waaye nangu nañ ne Sëriñ nit nituk diine la moom ala kulli parce que yàlla moo ko force la booy seet diine ji gën a rafet ci àdduna il faut que nga nangul Sëriñ Tuubaa booy seet symbole bu taxaw yi il faut nga nangu jumaay Tuubaa ci parce que yàlla tax ñu tabax ko waaw Sëriñ Tuubaa diine ji mooy jaamu yàlla rek moo tax ma defar jumaa ji léegi ne boo demee ci calendrier boobu douze pass la première pass waxuma ñu jiital Makka ak Madina de jumaay Tuubaa lañ jiital photo jumaay Tuubaa lañ jël muy première passe janvier calendrier jullikaay naar yi ñoo ko def France jumaa ji foofu la nekk ñi ngi sant bu baax ci ñi fexe bañ jot ci information boobu muy euh, jëwrin si soxo ak sëñ Massamba alhamdulilah sant naa bu baax ci loolu information boobu noonu mais nga xam ne calendrier moom boo ñëwee ñu solo boo nekkee biir France te soxla waxtu julli moom lañ lay jox am na fa boo demee jàkka jooju ko fa te calendrier boobu ñu defar ñoom seen premier pas janvier jumaa Tuubaa lañ def di top nonu pa pa ma mère wu ag àgg ba fukki wéri mat ñu def ben juma mais 12 juma mais Afrique de l'Ouest bi juma tuba kep lañ fi jël Afrique de l'Ouest mom lañ jël mu sembul lolu banen juma nekatu fi te juma yo ñu jël juma ju nek réew ma nga nek maam gouvernement mo yor fondation wala bour ba fa nek nga xam masan bu do lu melni France jum ñoo fa la association bobu la ci financement gouvernement koy def nga dem ñu tekki lu melni juma Istanbul mooy turc ku ko defal duwaa nguur ga nga xam ne réew yooyu ni ñu ëpp Sénégal koom-koom mënu sula ko misaal nga dem am na jumaa joo xam ne ma nga nekk ca Malaysia jël nañ ko moom tamit Ouzbékistan ak yeneen réew yoo xam ne boo xam ne da nga fay fekk jumaa yooyu ñu jël ko te réew yooyu jumaa yi fa nekk benn kuréel du ko defar maanaam gouvernement moo jël budget defar jumaa yooyu muy xaalis bi wax tàll bu dee Sénégal nag du gouvernement maanaam ab kuréel ci diine mu yoonu murit ñoom ñoo def jumaa joo xam ne bi ñuy seet jumaa yi ci àdduna douze jumaa pour dafa leen calendrier jullikaay ñu ñu jël jumaa tubaa o mu nekk première xam nga première bi leneen la maanaam sëñ Tuubaa mooy première ci nitu yàlla ci gën a foor loolu yàllaa ko def parce que loo xam ne boo koy natt ñi nga xam ne xamul murid sax bu ñu natt lislaam sax waru ñuy defar dara sax maanaam bu ñuy jiital suñ Tuubaa la jiital par force parce que calendrier boobu mënoon nañoo ji mënoon nañoo jiital yeneen juma mais lu tax ñu jël jumaay Tuubaa mu nekk première bi première janvier weeru janvier yëpp juma foto jumaay Tuubaa la ñu teg ci février euh, ñu indi beneen jumaa ñu teg ci mars avril mais juin solet jumaay yi door a ñëw indi nañ yi Madina boo demee foofa da nga fekk yi Istanbul mais weer wu ne ñu jagleel ko benn benn juma pour wane lii mooy symbolul islaam mais bi ñu wanee ne symbole islam la jumaay Tuubaa lañ jiital la Ahmad Lo ñoom doon bañ doon bañ ci seen seen association ba moom la ñee nangu rek moom la ñee nangu te association boobu ñoom seen seen seen page Facebook boobu nga xam ne moom ci daaru istiqaam wutul ko paas boo fa demee da fay fekk ay photo yu bari ay booli bulet lañ fa photo dugal ko fa ay booli bulet ay booli macaron ay booli ceebu jën te Ahmad Lo waxul ñu dindi ko mais photo jumaay Tuubaa mu nañ ko dindi mune nañ ko dindi mais seetal lu ñaawé non mais mom lan lañ lan la ko yoonu murid def lan la ko señtu ba def dara wax di yalla bo demee bay nangu bol bol bulet wala nga nan saw photo bop wala photo keneen borom ciol gu gat tubay ju gat pàncaa yu gat bolo yu gat ay kopati dégg ay sëqal siqin yu ñaaw nga nangu len def leen ay photo dugal ko ci seut istiqama bi nga bi nga tudde nonu daa ne nag photo jumaay Tuubaa moom d'accord ma ci photo Sayxul Xadim d'accord ma ci ndax ñoom nekkuñ ci sunna noonu la ko tra noonu la ko noonu la ko noonu la ko résumé waxe mais da ngay loolu lan la léegi loolu nag bu amee la léegi nag loolu ñu doon bañ am na ñeneen ñu ko nangu ñu leen faw ndax xam nga ñoom ñi nekk Sénégal yëpp di wax nii taalibe yi naar yi lañ kon naar yi ñooy seen sëriñ mais naar yooyee ñu doon wax ñoo dem ba ël adduna ñu wëlbatiku xam ne nag bu caaxaan jeexee dëgg faaxa sëñ tubaa fi ne mo liggéeyal diine bañu ñu bay natal islam diko ko defal calendrier ñu ne léegi nañ jël weer wu ñu jallo ko ben juma ñu jël juma tubaa mu nekk ci janvier muy premier mois ci année 2021 da danañ leen won photo yi ngeen gis ko nga xam ñom ñoko def euh ak yu bari ko loolu limi muy tegtale mooy loolu gis ngeen ko ni li calendrier bi juma tubaa la bo bo wacce benen juma ci top ba fukki jumaa yi ak ba fukki euh, weer yi ak nangam yu bëree bër la ba mu fukk ak ñaar nañ ma yónnee calendrier bi nga xam ne ci nekk jumaa ji nekk dakaar or euh, fële euh, France ci Paris or lii jumaa ji foofu la nekk ay naara ko moom yoo xam ne ay wahabis lañ da leen mën a tudde parce que ci ngir moom la doon dox mais ñoom dem nañ ba réglementaire yu bari xam na ne yu bari coxoon ak parparoo moo ñu dugal waaye nag bu ñu dee seet diine nag ah seet diine jot na seetal diine jot na génn ci xalaat yi génn ci soxor gi génn ci bodduwante génn ci xaste ñu àdduna defar calendrier ñuy seet na jumaa yi ci àdduna ñu jël jumaa waa muy première première jumaa loolu lu ko may Sëñ Tuubaa yàlla saa boo ko nangulee nangul ko loo xam ne kenn mësu koo nangu defal ko xam ne kenn mësu koo defal mu jiital ci lépp far force am na tey yu bari yoo na ay dëgg la yoo xam ne boo ko waxee nit ñi duñ ko mën a dégg te teewul muy dëgg yàlla defar ko Sëñ Tuubaa ndax lan dafa dafa yàlla da koo jaral loo xam ne ko kenn déggu leen ci histoire ñu ne diw sangam kat jaamu yàlla ak teg Rasulullah moo wala ñu jël ko juróom-ñaari at ña ko jël joxuñ ko lum lekk joxuñ ko lum naan joxuñ ko lum sol ba ba ba mbir mi jeex te moo ne yii yu bari la lu baree bari la te jumaay Tuubaa li ko tabax am mbooloo Sénégal bokk na ci réew yi gën a ñàkk bu doon góor ab da cee dugal loo xam sax ñu ne yaa tem-tem mais mbooloo ko tabax yeneen jumaa yi moo wax nga xam ne fukki jumaa ak benn yi ci des jumaa yi màkk boo demee buur ba moo koy yor financement bi te màkk ay teeni pétrole lañ yor seeni seen seen budget ëpp na junni milliards chaque at Amérique jumaa jafe nekk seen Amérique seen budget ëpp na junniy milliards junniy milliards dollars laa wax demal Angleterre demal Malaisie demal faneen réew yooyu nga xam ne dañoo tabax ay jumaa la ñuy yor ci budget chaque at ëpp na junniy milliards dollars ñun senegal junni milliards CFA sa motu ko suñu budget te ci biir loolu jumaa ji gouvernement bi tabaxu ko dërëmam demu ci murid yee ko tabax ci ay tooli àllarba ci ci seenu ñaq ca marché ba ca oto ya ca ñay ñaw ca ñay nekk ca géej ga dégg nga ca ñay ambila ñoo dajale tabax jumaa ji tabax jumaa joo xam tey bi ñu demee bay seet fukki jumaa ñaar ci àddina ñu jël jumaa Tuubaa waaye yemuñ ci jël ko ñu def ko muy première jumaa ji njëkk ci jumaa yooyu maam di ci ci même jumaa Tuubaa gis nga bu fekkente soxoroo boo nee ko jàkk rek dimension bi dafa lay jox lislaam maanaam ni soorali bindoo ak ni ñu réyee ak ni ñu taxawee yëg-yëg bi ñu ci am mën ngaa dem ci beneen jumaa doo yëg dara loolu ne ji daal rafet na mais jumaa Tuubaa boo ko jàkkee da nga yëg yàlla parce que ki ko ki ko ki ko ki dar dafa saf yàlla maanaam dafa saf ci yàlla sap loolu moo waral boo nee ko jàkk rek sa tawxiid yëngu mais yeneen jumaa yi boo fa demee lu rafet rek nga gis fii rafet na mais mën ngaa bañ a yëg dara mais jumaa ta lu muy rafet rafet lépp boo nee ko jàkk da nga xam ne lii moom fii yàlla ngi fi moom moo tax ñoom ba defal defar seen calendrier nag loolu dañ ko yëg loolu for force la force parce que yii Sëñ Tuubaa am ci àdduna yëpp boo demee tey ci àdduna kër réew moo dem moo am fa ak kër gu guñ ko fa defal di fa jàng alxuraan di fa jàng fa dalal gan ñi nit ñi dafa noppalu ku ñëw sangu def li nga bëgg def mais loolu foo ko gisaat ku Sëñ Tuubaa ko am lu ko tax yàlla lu ko yàlla may mooy daa defal yàlla kenn defalut dañ ko war a wax dañ ko war a wax nga dem euh, ci la la Abdoulaye waxoon ci Amérique ci li Sëñ Tuubaa di bind ak li muy wax gis ngeen ko la professeur yi waxoon ci école Columbia ba ca bañ bëggee traduire euh, Nahju Qadaa'il Haaj Jawharu Nafis yeneen téere ngi fi woon mais lu tax ñu ñaari téere yooyu festival bi ñu doon def fële ca Boroxil en 2014 14 mais lu waral ñu jël murid yi foofa pour ñu mën a jàng xasida pour ñu ne loolu moom moom dañu gis ne dañoo bëgg boole mbirum lislaam ci festival bi mais dañoo gis yoon wi ñu ci tànn mooy wii nii ñu moo gën a mën a tàppe xol yi lu waral tey suñ Touba am dëkk bi muy Touba 16 kilomètres titre fossé moom la Touba gaa yi dañuy nëpp nëppal lu ñu ko waxaale waaye 16 kilomètres la titre fossé bi 16 kilomètres dëkk boo xam ne lu mu gàtt gàtt dafay yeewoo ci ay nit ëpp na juróom-ñetti téeméeri junni la fa dëkk di ay millions ñaari millions ak lu topp amul usine boo xamee téeméeri nit ñi mën nañ caa xëy amul benn industrie war infrastructure secteur boo xam ne day jël ay nit lu mu ëpp ñaar téeméer ñu fay xëy te ni ñuy dunde benn dëkk attanu ko te ni ñuy dunde lafa nekk ci ay jumaa nekkul ci benn waxuma dëkk benn réew la nekk ay jàkka noonu la nekk ci ay daara noonu waxuma ay réew ay dëkk ay réew Tuubaa li nekk ci jàkka ba jumaa ba daara nekkul ci benn réew ku ko wax ko xam na nga ko wax ñu gis ñu xool ba xam parce que fii réew moo fi xam nañ ko deux cent réew lañ jàpp ne moo fi nekk tudda réew sangam ne am na ko gëstukat yi xam nañ ko ñu ñu bu fekkee laaj na debaa ñu ñëw ci tudda réew sangam ne moo ëpp Tuubaa ay jumaa wala ay jàkka wala moo ko ëpp ay daara alquran wala moo ko ëpp luy mokkal alquran amul te Touba ñi ngi ko sanc en 1888 ñu ngi ci 2021 132 années boobaak léegi téeméer at ak fanweer te réew yi ngay tudd yëpp ay junni junni at lañ fi am réew yi am nga xam ne mënuñoo mënoo ko dëkkaleeg Touba ndax ni ko Touba rawee ci wet yëpp amul te Touba téeméer at fanweer la amagoon nga mën a am dëkk bu toll noonu di nit nga xam ne yaa ko goral sa bopp mu tol nii mu toll nga ñëw ci wàllu kaaraange gi yeneen dëkk yëpp boo demee dakaar gii rek amul kaaraange yeneen dëkk yi taxul may wax maam Tuubaa ni mu amee sécurité ci nit ki fi nekk ni muy dunde ci léppam ni mu amee ak doylu ni mu amee am xel gis ngeen Covid 19 bi mu door a tàmbali ñëpp a tiit adduna bi di pat pati ñu dugal ko Sénégal ci weeru mars nit ñi tiit ñëpp bële fi waa Tuubaa mun ñu ko gëm ñu yàpp ne waa Tuubaa ay dof lañu wala nangam ak nangam ba yeen arabie yi sax da doon bind seen paas nan lu tax wa tuba mu ñoo gëm affaire bi te mooy lu am la nga gis ci ko xamne ne na ci yak der nan xaaral dal seen serigne rek bu dalé seen serigne dañ ko gëm am keneen ku ko dakk yak der nan bu dalé serigne ci sax bu dalon seen serigne sax dox ñu gëm ko ndekete yo ñoom ñu amutum xel ña doon bind lool ak ña doon wax lool ñoo dem ba yek ni timuridi affaire bi ay tapalé la xam nga loolu lu yewut ak touba mo royat ci mouride ba ñu yeew ba nga xam ne sax mbir mu leen andi rek seen jiiniyaat yi bu ko nanguwul rek ñu xam ne du dëgg moo tax bi covid 19 di door a tàmbali muy virus corona bi ñëpp ko gëm tiit di pat pati waatu baa def ko ay caaxaan ba fii may waxee yow lu mu leen jariñ yàqul leen dara te booba kër yëpp dan daan bind da dal ci waa Tuubaa naan ñoom ñoo ko gëmut ak dugg na fi génn fii lenn ci arabisants yi di yàq dana waa Tuubaa ñu ko gëm te mbir mi am na am ko naan mooy keneen ko dàq xam nga ko yàq der boo yàq der da am day am da ngay am bàyyi jo xam mo dak yak der am mam ju la yàq der le ñom biñu démé seen studio di yak der nan Tuubaa dal mun ñu gëm affaire bi waye bayi leen rek di ñu jëma tekk ñun ba ngeen ñu baye yalla ba yalla def ñun ñu def kenn jaaxalatuñu keneen dak ko yak der nan ñom buñ ko gëmu tamit bés bu dalé seen serigne si dañ ko gëm am keneen ku yak dak yak der né même bu dalon seen serigne so sa wa duñ ko gëm mais ñe bindon lool ba tay ñi ngi fi ñom tay ñoo gëna virus bi ta xamna leen télévision yépp ak radio yi Sénégal yàq nañ dara wa Touba yàq dara murid muñ ko gam dafa jóge fondement bi mais légui ñepp xam nañ né ay tapalé la ay tapalé la ay business la wa corona business képp la du lanen business gis nga ñak bi ñu défar ñak bi bëkk dem rek ci Amérique gis nga ñu fa ñak ci tang tang bi ñu am problème té dem rek ma nga jot information bo xamné ko xam dañ ko ñak ba nopi ci hôpital nekkoon docteur di liggé ñu ñak ko ñak ba nopi ñak bo xam ne bu la ko ñàkkee du dal ñu ñak ko ba nopi affaire bi dal ko te réew yépp defar ñàkk Amérique defar na ñàkk Allemagne defar na ñàkk Angleterre defar na ñàkk Chine defar na ñàkk Russie moo njëkk a génn te ñàkk yi ñuy wax yépp ay commerce la képp ay commerce moo képp la du la neen dañoo jël tawa si teg ko fi ngir commerce ndax ñoom belge lañ ko santoon yow del créer ay tawat di créer ay ñàkk di créer ay garab roog firal yow del créer del créer maanaam nuñ mën a fexe ba yàq nit ñi ci wàllu nouvel technologie yi xew waaw kep ak lepp luy xeetu machine wala appareil wala xeetu bombe wala arme yow yow lañ ko sas kee ñu sas ko wala tawadi del créer ay virus mu créer virus bi en 2015 Bill Gates génne wax wax ko mo ne vidéo yaa ngi fi Bill Gates fi mu taxawoon di wane né en 2020 virus dana am bo xamné du doon bombe bi ñu door du doon fétal du doon combat du doon nangam nangam waaye ab virus lay doon loolu vidéo baa ngi fi moo ko wax mille quinze génne ko daan na lii mooy dal adduna bi ndax moom loolu lañ ko sant muy créer ay tawat moom Bill Gates tey bi ñu ko créer gis nga ko moo tax bi mu door a tàmbali mbooleem maanaam euh, munasabatu siraatal muy OMS ñoom la ñu waxoon mooy maanaam mu su am am ñàkk te mutul at te loolu waxoon def nañ ko moo na bi mu tàmbalee première weer deuxième weer trois troisième weer maanaam mois mois yooyu noonu premier mois deuxième mois troisième mois yëpp foo ne dégg nga kee am na ñàkk kee def na tourné na lu koy faj waxi kase mais OMS la mu waxoon moom lu leer la fii ba deux mille vingt et un bi mënut a génn moo tax bi ñu demee ba weer képp des ci deux mille vingt et un nga tàmm ñu annoncé ay ñàkk Russie annoncé ñu toog tuuti euh, Chine annoncé Amérique annoncé France noonu ñoom parawaaroo nañ ko bu yàgg bu yàgg te lu ëpp fukki at am na benn kuréel bu nekkoon ci Amérique waxoon na ko bu yàgg ci wàllu virus corona bi da ci joxe ay attention ne dana ñëw xamoon nañ ko léegi nag ñi ma gën a yërëm nag moo ñu ko doon jëm ci njëlbeen lu ne ñu dal ñu yàq deru waa Tuubaa yàq taalibe yi deru taalibe yi di yàq deru murid lu ñuy wax waaye ndekte yoo murid yi leen ëpp xam-xam fuuf ëpp leen ay xel fuuf gën leen a ñëw fuuf gën leen a xam li xew Tuubaa la ñuy nekk dil ya ñu teg Amérique di ko teg yeneen réew yi xale yi nekk Tuubaa xam ko loolu moom mooy li wér ko nangu ko nangu gis nga ko ñi jëloon ay décision yëpp ci affaire bi di contre Touba di contre nit ñi ñëpp a daanu journaliste yeeg docteur yeeg gouvernement bi ñëpp a nërmeelu ñëpp xam nañ ne lii ay kàcc la lu ñu tëral rek ngir am benn lu ñu wiisi ëpp positif képp mais du la nen tey kuy dund xam nga ko loo xam ne bu la neexee yokk bu la neexee wàññi augmenté wàññi képp nga fi gis mais fekkoon tey ñàkk yi mu génn kay ne moo koy faj kay boo ko ñàkkee ni waru ko mën a dal mais démb ñàkk nañ ci benn docteur fële ci Amérique mu tourné dal ko Angleterre loolu xew na fa ñàkk ko ba noppi mu na virus bi dal ko ci nañu waxee ñoom virus corona bi ku ne xam na ne nekkul loo xam ñëw ba dañ koy dañ koy yeesal ko yeesalaat en mille huit gisoon nañ ko loolu ba tey ay documents yu yaatu la mais mille neuf cent soixante six amoon na fi deux mille douze feeñe na soxoodiya mais saa bu feeñee bay feeñaat dañ ko jox waneen tur covid 19 al mustajid virus corona al mustajid xam nga bi mu amee 2012 ca Saxoodiya docteur yi daje fexe ba génn am ñàkk faj ko moo tax bi ñëwee ba bi mu xewee daaw ca siin ñu ne leen covid 19 al mustajid mooy baneen bu bees dafa génn xam nga fan yi lu ñuy wax sulaalatun jadida ca Angleterre la feeñee ñu ne am na beneen façon bu génn beneen façon doxin ci ci virus corona bi bu xew ma nga xewee Angleterre ñu dox ñaari fan ñu ne agsi na ci réew sangam réew sangam léegi agsi na France agsi na Afrique agsi na faneen noonu lañuy def agsi Sénégal nag mooy dañoo bëggul mu jeex mais bu la neexoon lu weesu weer mais ca tappale yooyu mu tuub murit xam nga maanaam yeewu teg Sëñ Tuubaa wala la Tuubaa boo xoon bi tubaab yi jotee ak Sëñ Tuubaa am na benn tubaab bu leen ko xam ne gis ngeen kii ñi ngi door am problème maanaam xel mi ko yàlla jox jéggi na doyo loolu moo jeexit ci murit Sëñ Tuubaa yi moo jeexit ci Sénégal Sénégal sax par rapport ak yeneen réew yi docteur Sénégal yi ni ñuy faje keneen fajewu ko sax te lu mat a xam la kon yooyu yu mat di bàyyi xel la àdduna kenn mënuñu fee nax lu xew nag bu tubaa jëlee position ñu taxaw di ko reetaan lu ñu koy wax ñu jàng ay arabe ak ñeneen ñoo nekkoon université ñu jàng tuuti français ñu jàng tuuti anglais nga xam ne aw làkk lañ leen jàngal ñooy toog na ci télé bi ñii di leen waaye professeur ñii ay ay ay intellectuel ñii ay eh, maanaam expert nangam nangam ñu toog rek nag te li ñuy wax lépp du dara ay théorie képp la képp kon loolu lu jara bàyyi xel la sëñ Tuubaa ni mu def yàlla ko ko def nit nag bu nekkee nit ku ñuul dëkk Sénégal wërta ñàkk fulla baa mu ñàkk fayda di jënd mbirum sëñ Tuubaa ak laneen wala kaneen te loolu mi am na ñu bari tey xalaati filos maanaam salafiste yi ak xalaati nit adduna yi dafa jeexit ci ñoom ba day feeñ ci seen wax feeñ ci seen i jëf bu ñuy waxtaan ci sëñ tubaa sax dangay ngay seen ñu koy jéem a équilibré kiimaane sax duñ ko nangoo wax naan nañ ko jéem a ci affaire bi noonu mais loolu ay théâtre la da nga war damay théâtre xam da ngay théâtre sa tuba di ko ci ab téere bu am nar bind wala wax ju keneen wax di ab ab ab ab naar boo xam ne xamul sax luy loolu nga jël ko nag ci natt suñ tubaab yaa teater. théâtre ak koo mën a doon loo bañal tuba tubaab nag da ko comme Ahmad Lo ni mu bañoon foto suñ tuba yi ak foto jumaay tubaab ñeneen nañ koy par force kenn mun ci dara ak yeneen yu bëri yoo xam ma ko tuddoon day jël jotaay bi ñaata tubaab ñoo taxaw di seere ci sëñ bi ñu jox sëñ Tuubaa fële bis ca Amérique ca New York ca Nations Unies bis boo Amérique waxuma la Sénégal wala Afrique jëmmi Amérique yëpp boo nattee ñi fa jox bis ba matul fukk fukki nit matu ko ñu boole sëñ tubaa waaw jagle ko bis bu mel noonu ci Amérique defe ko ci biir Nations Unies ñëpp ci seen messon boobu seen kër googu noonu ci kër mbootaayu xeet yi ñu jox ko bis ñëpp daje loola jamono bi ñu ko jox Sëriñ Tuubaa ci euh, euh, mille neuf cent quatre-vingt-onze ak douze booba Amérique gépp te Amérique boobu ñoom bis yooyu pour ñu jox la ko dañuy seet ko xam daa def effort ci réew ma te boobu biir réew Amérique ña fa def effort ñëpp bañ di leen naw ba jox la bis ba boo wanee sa loxo boo doon wàññi mëtun fukki nit ci booba lañ ko jagaloon Sëriñ Tuubaa bi ñu def euh, euh, semaine culturelle bi ñu doon jagal Sëñ Tuubaa Europe en jamono Sëñ Abdu Lahat muy bis ba bis ba delsi booba France gépp boo fa xool ñi ñu fa jox bis boobu mutul fukki nit tey am na fu bare boo demoon adduna tey da nga fay fekk mbindum Sëñ Tuubaa baa nga fekk fa ab photoom bu ñu wax ci wàllu culture dañu ko indi suñu wax ci wàllu économique danañ ko indi bu ñu wax ci wàllu éducation danañ ko indi ci réew yëpp nag am na ay saal yu bari yoo xam ne nit ñi tele yi ñoo fa nangu tane mais boo demoon fekk fa mbirum Sëñ Tuubaa wala nga fekk fa mu am lu mu jëm lu mu symboliser nga xam nañ ko tubaab yi ñu gën a xam Sëñ Tuubaa nit ñi ah parce que dañoo dund ak moom fanweeri at fu ñu dugal ko fa pexe yi amoon yëpp ñu def ko Sëñ Tuubaa ne cocc am na ay labbe yu mas a booleel sëñ bi ne neen xoolal ñu tubaab bi wax labbe yi neen xool leen ko ba xam lu ne ci moom ndax parce que sànq nañ ko mënuñu koo sànq labbe bi ne leen léegi li may laaj mooy ndax mas koo gis ba ngeen ànd moom mooy sept ndax mas koo gis muy lekk tubaab bi ni ko déedéet mas ngeen koo gis muy naan ñu ni ko déedéet mas ko gis mu mu dem ba yàgg muy nelaw ñu ni ko déedéet mas koo gis mu sonn ba bàyyi la muy def ñu ni ko déedéet tubaab bi leen kii du nit parce que lii ku doonu nit moo koy def mais nit moom koo maa a doon da lekk da nga naan da nga nelaw da nga sonn te tubaab bi ji bi ànd suñu tubaab benn tubaab bu la mën a wax ne maa ko jox lekk maa ko jox naan maa ko jox ay yére maa ko dimbalee ci daaj maa ko dimbalee ci kayit yi daa sonn fekk naa ko muy nelaw amul trente trois trente trente année yu mat la tubaab bi ànd ak suñ tubaab te lii mosuñu ci teg bët loolu nit mënu ko amul kenn ku mas a wàcc ci kaw suuf ku man loolu koo fi indi day lekk ba biiram fees mu door dem jaamu jàll baa mu naan ba màndi te day nelaw kenn ku la mas a wax loolu ci tubaab bi amul moo tax labbe ba mu leen laajee loolu ñu ne ko gisuñ ko mu ne ba boo ngeen delloo ko du ngeen mën ci moom tus léegi nag boo ngay nit ku ñuul dëkk Sénégal nga gis ku mel nii ni mu sigile der bu nit ku ñuul ni mu defee effort nga ne da koy jënd kaneen wala daa am kaneen koy roy ah. tey wahabis yi nekk Sénégal yëpp tout ak ak seen kuréel yu bari yi nekk ci réew mi yëpp ndax lépp benn kuréel la rek dañ ko wuta ay tur yu wuute ñi ñu tuddee ay ibaadu ñii tajamu diin islam yi ñii daal istiqaama ñii ñu tudd leen falaax mais lépp benn kuréel la mais ñooñ ñëpp naar ya ñu naw wala seen kilifa ya ñu naw ci xam-xam tanewul leen ci len koo xam ne daqulaa jullit daqulaa war defut benn effort ci diine boo defut nga ne koy naw wàcc koo xam ne leer na la te ñii ma wax ñëpp nag nga xam ne dañoo dem jébbalu ci ay naar ngir seen alal dañu yor muy pétrole wala réal ba ñu yor wala beneen koppar bu ñu mën a yor ñu jébbalu ci ñoom tax ñu ñëw fi defal leen fi ay jàkka yu ci seen digal defal leen fi ay jumaa wala ay daar ci seen digal ñooñu ñëpp seeni baay ñu ñoo gën a garaaw naar yooyu foofu te nangul ñoo topp parce que ñi fi seen ñëpp ñu bàyyi fa suñ tubaab bàyyi fi mu rek di am keneen ko ñu nawloo seeni bàyyi leen gën fuuf ëpp leen xam-xam fuuf gën leen ragal yàlla fuuf bu dee da ngaa sant Touré say maam yi sant Touré lañ mënoon ci alquran man ko ci diina ji am naar mënu ko benn naar wala benn kuréel bu nekk saxoodee wala beneen réew bu man li sa maam mënul amul boo santee ture boo santee loo noonu boo santee jaxate noonu boo santee silla noonu boo santee neneen noonu nga bàyyi nag la sa bàyyi sa maam nekkoon lépp te sa sa maam yooyu lañ mënoon ci alquran man ko ci diine lislaam amul naar bu ko man damaa jëlil sëñ tubaa te sa bàyyi mënoon loolu ak sa maam yooyu yëpp dañoo jël lañ moom lépp ñëw jëbbal ko sëñ tubaa ndax xam nañ ne kii moom kenn la képp kuy dox say tànk féete suuf sa bopp ne col ci kaw maa mën sëñ tubaa du sa morom pëndam sa doo ko seen Ken mun seigne touba dara am duñ ko mën message ci nit parce que mom lenn lam lim togo won ci aduna lu ci nek suñ ko tegoon ay giir ay dëkk ñu loof ay juni juni mën ñu ko def seigne touba lim daan def ci benn bis rek lim daan togo ci benn bis ay juni juni nit ëpp na leen mun ñu ko togo kon tay buñu démé ba gis ay wahhabis wala ñuy tud ay ki ñu nek ay nit ñu ñul dem di jël référence ci Muhammad ibn Abdul wahhab ba ca benn baas ak albani nangam nangam ñàkk fulla ñàkk jom ñàkk fayda te ñiy def loolu lépp seeni bàyyi laa wax de masalan ma ko misaal ci masalan tey boo gisoon tey wahabis wala wala ibaadu bu sant ture mu doon ab ibaadu wala mu doon ab wahabis wala mu doon naneen ñàkk fulla ak ñàkk jom a tax ndax baayam ci bopp boppam xam na ne du moromi ñooñu waaw ndax ñee sant ñee ay baayam de sant Touré lañu def ci alquran def ko ci diini ji naar yi muy defuñ ko ci boo santeeloo jaxateeg sillaak naneen ci saa boo fi bàyyee li sa bàyyi nekkoon dem toppe ay naar sa bàyyi lam def ci diine naar yooyu mënuñu ko amul loo loo looy roy ci naar yooyu damaa jëlal sëñ tubaa nag nga am ko toll ni sëñ tubaa nga xam ne say maam ak sa bàyyi yëpp lañ yoroon dañ ko ñëw jébbal ko ko xam ne kii moom kenn la kii moom amul moroom waaw képp koo gis ñu koy naw naa daa am xam-xam wala daa xam addina wala daa yeewu wala daa dégg hadis wala daa dégg alquran wala koo man te sëñ tubaa néexu ko moom maam ku xëyee yam neefare ya mbaam xuuxee ko tane dañuy wax rek bépp xol boo xam ne iman mi ngi ci yëngu nga yëg yàlla suñ tubaa dana la neex moom lu àdduna yàgg-yàgg nag fu ngeen ko mën a gis muy sénégal muy mëneen réew ngeen gis ak nit ñu koy new ci benn façon xam-xam ci xam-xam yi baa ci jaamu yàlla baa ci alxuraan lenn te mu xam suñ tubaa suñ tubaa neexu ko lañ ko waxal ay fen la du dara moo théâtre kat yi li ñuy defa yam waaw suñ tubaa képp kuy yëg wala diine ñor la sëñ tubaa dana neex moom ala kulli xaal faaw mu neex la waaye nga a da ngay wootoo da nga am xam-xam ooyee yow ab salafiste nga nee na te sëñ tubaa neexu la fenn kese loolu mooy naafeq gi léegi nag seen maami salafiste yi leen jàngaloon nag rikkale nañ ci yéen léegi xam na ne tubaa moom kenn du moom ba lu ñuy def boole ci sëñ tubaa perte ngeen te montant heure bi yéen a waroon jàngal sëñ tubaa sëñ tubaa jëlee naa ci nit manam ci ragal yalla ak jaamu yalla ak l'islam mais ci aduna ken koy lam la jariñ amo sa men ma mu lako meuna jariñ ba ben ad ba ben kurel, ba ben rew par exemple buñ jëlone walu économie Sénégal fi suñ Touba limu def ci économie ba ko man ci jariñu nañ jël rek men ni Touba borom auto yi borom usine ciment yi borom usine fer yi borom ndox yi ñu yor walum ndox ñu yor walum courant kenn ku nee la ngay gagné ci Touba ci ci économie mënoo ko gagné ci beneen réew ci Sénégal mënoo ko gagné ci adduna faneen kon yow fi saase waroon ngaa delloo njukkal sëñ Touba waroon ngaa yëg sëñ tubaa waroon ko jël ci sa société boobu nga wutal ci ab pàcc bu sëñ Touba moom ndax boo demee ci waa Sénélec wala waa Sonatel wala ñiy defar tëli yii wala ku mën a doon ba ci gouvernement bi kenn ku ne la ngay gagné ci turu sëñ Touba nga xam ne li nga xam murid ko jënd ci yow keneen mënu ko jënd ci yow courant Touba li muy lakk ci courant ko lakk ci mbirum téléphone li fiy dugg ci ay oto chaque jour transport liñ fi tabax muy jóge ci usine kii defar ciment bi muy dànkuteeg muy kaneen ñiy defar ne kenn ku ne la ngay gañe ci xaalis ci Touba doo ko gañe ci benn dëkk ci réew mi dëkk ba nga dëkk sax réew ma nga nekk mënoo ko faa gañe amul benn usine ci Touba bi bu la mën a gañeel loolu kon ci économie rek tuub buñ seetee Sénégal tey ñi fi yor ay milliards bañ leen di tudd ñëpp a njabootama kon ñooñu li ñuy jariñ réew mi waroon nañoo suñ Touba symbole bu ëpp biñ ko jox bu ëpp biñ ko jox jàmm ji fi nekk tey Sëriñ Tuubaa defee Sénégal ba nga xam ne ci wàllu yar nga xam ne wàcc na fi ay jeexiit baat yi gën a rafet tey ci àddina ci Sëriñ Tuubaa la sosoo sëriñ bi yaaram bi soxna si sama jëwrin maa ngi siyaar na ngeen xeet yooyu noonu kalaam bu rafet boobu nga xam ne day tax xool yi tàppe wu nekk benn ku ko fi indi tey dem nañ ba mu jéggi Sénégal ba yeneen réew yi di ko wax sax ndax koo ne sëriñ bi mu yëg boppam koo ne yaaram bi waxi noppi koo ne sama sang mu waxi noppi dégg soxna moo gën a rafet jabar ak yeneen yu bari kilifa gi sang bi yooyu noonu terme yu rafet yooyu noonu ba ci lépp lu ñuy def rek ci àddina Sëriñ Tuubaa fexe na ba créé ci loo xam ne moo ko njëkk def ba tey àddina bépp nga koy jariñoo tey muy ay baat yu sell loolu mooy jikko kiliteer yu baax ni mu sosé ci anam googu tamit kenn ko yaa ngi ci sa bop kenn ku nek ba sax bo demone ci ab bureau wala fen fek fa am mourid sax ni mi jëflanté yow xam nga ne keneen mu ko jëflanté yow keneen bu doon keneen du def non ni yar bi ci dess moy nu réew mi yag yag yag yag lu mourid di yëngu bu neen tok lañu tok bu neen jug lañu jug xoola jàmm rek kon gouvernement bi wet go waroon na fee delloo njukkal murit di ndax nu réew mi meuna a mel rek bu suñ mu wax jeex lepp tër jeex fin jeex tak bu ne toog la ñep toog ben ciow du yëngu lu mëna xew rek ñun mom la déggul bu ne toog la ñuy toog amul ben problème lu ñu mëna a naqare bañ jug ne dañuy manifester bu sëñ bi ne toog la ñuy toog loolu doo ko wër amul amerique amul France amul Angleterre amul Allemagne amul euh, euh, Chine amul Russie réew yi ci yépp lolu loolu amu fa kenn nit ko xamne ne ma da nga na leen toog leen ñu toog bu kenn jug danaa ko li ñëpp toog mais loolu bu ko gouvernement Sénégal xamoon li ci nekk yar nit ñi ba boo leen nee toog la ñu toog bu kenn def benn infraction ñu toog loolu foo koy jënd ba mënoo ko jënd ci alal di ñaati kuréel mafia ñoo ne ci adduna tey kenn mënu leen lijjanti wahabis yi di wax seen naar yi ñu jàngi seen naar yooyu seen réew mënu leen lijjanti la fa ne ci ay kuréel kenn xamul toll la fa ne ci ay xeex ak guerre kenn xamul toll ni Sëñ Tuubaa defee Sénégal ba xeex amut jàmm na fi ñooy amu ci beneen réew nga gis ci wàllu économie bi ci wàllu alxuraan noonu ca reen noonu ku ne nga ciy yëg sa bopp mais loolu nit ñu ko fi ñukk nag dem di seeti keneen moom wala di jéem a jël keneen di fi teg walla di bañ wala di bañ a wax may yooyu ngir am koy bàyyi xel ak yu mel noonu dof ak ñàkk fulla ñàkk fayda képp waaye képp ku ya ku suñ tubaa képp ku mu neexul da ngaa ñàkk tawfeexu sunu borom yéen maa borom dana la teggi amoo xam-xam amoo yar amooy teggin te loo ko mën a jënd da nga lu mu yàgg-yàgg nag te bala ngaa dee da nga ko bu la kenn jommal ku lay jommal daana la jommal ci xam na suñ tubaa moom amul morom ci genn wet nit ku ne Sénégal ku fi nekk amul looy roy ci keneen maanaam amul looy roy faneen doo amul looy ci am réew amul looy roy ci ak nit li fi mat a def ci lu baax lépp sëñ bi def na ko li fi mat a bind lépp bind na ko dara desul saa boo facee di roy leneen rek bee baaxut ba am bopp bi ndox moo ci nekkul wala nga ne dama wax sëñ Tuubaa ngir ñoom diw sàngam wala sama xarit sàngam wala yooyu noonu xëy yooyu tey toralaas bi loolu rek ak leneen mais sëñ Tuubaa booy seet li mu jariñ réew mi kenn mënu koo lim ba tuwaabee ñeneen tàmbali di ci jariñu mais yu sëpp eh, ci wàllu xam-xam li loolu tamit boo doon seet masalan tey Ahmad Lo bi mu nekkee sonre yi di jàngi gis na fa ay ñoo xam ne suñ tubaa leen suñ leen mm, jàngal xam-xam ci ni ma ko mën a waxe mais loolu ñi mu ko bindaale ci téeréem bi xali loo bi mu toogee fii naan kaay leen bàccal ma rek di kaay leen bayal ma jumaa tubaa ji ku ko tabax ku ko tabax ay tooli àllarba lu tax ñu tabax ko julli goor julli bi ñu taxawal jumaa bi ñu taxawal jumaa Touba en 1948 masalan ci tàmmee si xilaafa Cheikh Mamadou Fadil te lu jiitu loolu tàmmee ci xilaafa Cheikh Mamadou Moustapha mais bi Sëñ Fallu agsi pour pour euh, yëkkatiwaat jumaa ji en 48 en 63 ñu ubbi ko ca yooyu jamono ci àddina doo dem ci benn réew Afrique fekk fi jumaa ju mel noonu Afrique ba Afrique jeex yeneen jumaa yi ñu ko doon mënoon a te tubaab bi doon ko bind muy Makka ak Madina booba réew yooyu duñ moromi Sénégal ci genn wet moo tax am na benn tubaab bi bind di wax dafa ne bi mu ñëwee Touba en 1956 ba gis jumaa ji boobu poto jug na lépp jug mu ne lii li mu koy fàttali mooy tabax yi mag yi nekk New York wala Washington wala yi nekk Angleterre nga xam ne doolee ko fa def nguur mu ne tabax yooyu tabax bii rek loolu la koy fàttali te mu ne li ko gën a yéem mooy tabax bii mu gis Touba ci en 1956 ñu fi taxawal motuñ 60 000 personnes pour wan na njàmbaar gi effort bi ñu def pour indi raay bi pour néegub yàlla tax mais kon ki taxaw naan murid yi kaay kaay leen bàccal ma kaay leen ruuj ma rek ngay dégg xanaa mu dafa fàttali bi ñu indi raay bi fii ci ci xaalisu murid yi ay maam daan ci jaar ay baayam daan ci jaar raay boobu jumaa jee taxoon te yaa ngi koy wax di ko jëmee ci nit ñoo xam ne la def ci ay jumaa réew yi nga nawloo wala ña la ña nga gëm bañ lay jox ceeb ak cere ak ay bureel nga di ko lekk ñooñu mun ñoo def jumaa yi jumaa yu mel noona ba moom mu tax di wax loolu kay bind ab téere di sosal waa yoonu murit ak di sosal sëriñ bi ak kay wax naan buñ buñ dugal photo jumaay Tuubaa ak sama sama téere réew yi mu doon jànge sëñ Tuubaa def na fa xam-xam si Abdul Hasan waxoon na ko fi ma fàttali ko boo demee Saxoodiya que ñu gën a naw ci wàllu hadis nga xam ne ay doomam ña fa ba tey ji ma xeew muy Ahmad ak Muhammad seen baay nga xam boo ko fay fekk nga ne ci ñi gën bind ci hadis ñu gën a fàllu delluwaay yoo xadis nga bind ci ab tire tuddug ak dalilul musir ila falik asaniidi ittisal bil habibi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci gatal nonu tire ba tuddu nga xamne moy baye ahmad ak euh, euh, muhammad ma nga xamne ne bo neewon makka fek fekk leen fa seen baye bobu amna na bu ko jangal ñi gëna a ci ay sëriñam sëriñam bobu suñ tuba ko jangal suñ tuba ko jangal te ahmad ibnu hasan mi nga xamne moy delu way bi gëna a hadith ci hadis sëriñam ba ko jàngal muy asayid euh, atabari ibnu abi bakrin moo jàngal euh, euh, kii moom abou bakrin moomu abou bakrin moom mi ngi faatu 1954 def naa xese bi yàlla na fi abdullah sa nettal na ko ñëpp gis nañ mu gaaw rek waaye boo demee saxoon dafa am ñaar ñu fa nekk ñu tudd ahmad ak muhammad seen baay nga xam ne mooy delluwaay bi gën a mag ci saxoon ci wàllu hadis dafa bind benn téere tudde ko ak dalilul musir ila falek asanidi bi ittisalil eh, eh, ila asani ittisal bi bil habibil bashir noonu la tudde téere ba nga xam ne abou bakar ahmad ibnu hasan ibnu hasan moo bind boobu ibnu hasan moo bind téere boobu abou bakar moomu def téere boobu nga xam ne mooy delloo bi gën a mag ci hadis bokk ñi gën a mag ñooñu nga xam ne fekk mi ngi faatu 1954 sëriñam ba ko jàngal sëriñam boobu mi ngi faatu 1311 ci gàddaa ji maanaam 1894 boobu sëñ bi dama wut géej gi ci la faatu te sëriñam boobu noonu moom dafa am ay sëriñ waaye sëriñ yam am ba mu koy lim sëriñ bi ci gën a mag dana mooy sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kon bi ko sëñ bi jàngal booba taxawagul yoonu murit daanaka kon sëriñëm boobu sëñ Tuubaa jàngal na ko ba noppi ba ba bindal ko defal ko ijaa sax wan ne ko am nga xam-xam mu door faa jóge mu faatu moom 1880 maanaam 1894 ci euh, calendrier jant bi en 1311 ci gàddaay gi Sëñ Tuubaa amaan fi ñaari at dem ci géej gi maanaam te limee boobu la faatu kon kañ la ko Sëñ te bi mu dem ci amul mu ak nit ne dem na ba am xam-xam ba jàngalaat koo xam kam jàngal mooy mufti bi ci hadis ci saxoon yi ay doom ba tey ña ku dem fekk ko fa te li wahabisi nekkon nekkoon saxoon yëpp daan fenal wa tassof xam nañ te ni muñ ko bind ci ay téere a ni muñ ay téere te euh, euh, asayid ahmad atabari ibnu abi bakrin sëñ tubaako ko jàngal ijaasa ko defal ko na ko am nga xam-xam lu yàgg te jàngal na ko lu yàgg te demagul ci géej gi ndax ahmad moomu mi ngi faatu euh, mille trois cent onze ci gàddaay gi maanaam mille huit la faatu te ahmad moomu moo jàngal ahmad ibnu aboubacar ahmad ibnu euh, ibnu husayn moo ko jàngal te ibnu seen mi ba tey dooma aboubacar mi ba tey ay doomam ñi ngi saxoodee ci wàllu hadis nga dem saxoodee nag bind sab téere nag tuddi ko taqdiru asxaas fen caa fena fena fan ba neex la te nangoo bind lii lu toon mu bindaale xissa bi te ma nga ca téere boobu addalal boo demee ku ko am def na abdoulaye sane wax na ba tàyyi kon yëpp ay mbir la yo xamne yu fi xew la kon suñu tuba xam-xam kenn duko wérante ndax ko xamne ña nek saxon de di ay nar ñu ñu naw leen ci walu hadith sëriñ yi leen jàngal suñ tubaa leen jangal ijaasal leen kon ku toogati senegal di jema critique wala yu mel non sama fu mu ben jari ak yeneen yu bari ñu ngi nuyu ñep di siyaare ñep di ñaanal ñëpp ak tawfiq di sakku ci yeen waye dal ñu xamne suñu tuba amul morom ci li yalla bind kum neex moy li yalla def kum naqare moy li yalla def nekkul di ci waxaale baa di ci am leen lu ñuy négocier kum neex ak kum bañ yàlla defa na ko li mu koy defal ku yàlla may la may goo xam ne kenn mënu koo dindi bu la neexee may na ko su la naqaree may na ko bokk na ci ñàkk fulla ñàkk fayda nag jël suñ tubaa di ko natt ci ay téere téere naar yi ba téere yi ba waxi albani yi ba may ni ba Muhammad ibnu ba kaneen di ko ci natt wala dem soxodee ba Tunisie ba nga dem Algérie ba nga dem Maroc ñëw naa da jéem a natt mbirum murid di, ci la nga jànge won fofa muy ay wax aduna du yag yag yag ba wax man jëf ba jëf niou dool ba wax di man ya, du munta am lu aduna yag yag wax du man jëf ñu nag dañuy jëf rek nak yene nak la fofu di wax rek dem sukkandiku ci ay téré xam ñoko def ñoko don def ñep jamono mi ko def dañ don mané téré yu bëré bëré tay ci ñu jàpp ci téré diini wax sa xalaat képp la ñoko don def ñep mané gu metti gu nga ci yobbu ak am jot nga nga jàng ko ne ñëw na jàpp ne yow yaay borom xam-xam toog naan da ngay jëm a interpréter Sëñ Tuubaa yooyu comme ça yu mel noonu ñàkk fulla ak fayda Sëñ Tuubaa li mu bind dara da ko gën a leer ci àddina li mu bind ci alquran bind ko li mu def ci alquran def ko ci jàkkaatu jumaa kenn ko mas a gis nga dem di naaw loo ko xam ne boo amee jàkkatam benn la koo xam ne wulóor wi yàlla def doomu adama sax mënu ko def ci jëmmam su demee bay xotti ab yére bu mu ñàkk fayda lay xotti dagg ko pantalon ju gàtt ak simis bu gàtt bu kii tegu na ci kaw di cokos cokos bu jullee jàkk bu ne asalaamaaleykum mu ne bari dem yoonam nga dem di ko jënd ay Sëñ Tuubaa woon ko jënd ay muride yu mel noonu ñàkk fu la ak fayda yar leen seen doom yi te ngeen jàngal leen te ngeen xool daara yéen leen di yóbbu Tuubaa nag léegi bari na ay rax daara yi bari dafee rax léegi bee ba ngeen bàyyi ci xel daara yi bari ñi ci dëkk bi te yàlla taxu leen di jug ay intérêt képp leen tax a jug te ibaadu yooyu ñoo ko moom ay association ay association yu bari lañ dëkk bi léegi yoo xam ne ñu ngi fi ku yor sa dom di ko yóbbu nag seetal daara jay jàngale alquran di jangale xam-xam téere yi nga yobou ko fa mais jox ko nit mu defal ci alquran kesse kese kesse kese ba noppi def ci bob bi xalaati setané loo ca góobee nang ko gar yaa ko def sa dom da ngay xol fi ko yobou ibadu wa habisi amna ay daara yu bari ci dekk bi ne ngeen len moytu parce que xalaati setané la ñor baaxunu ku yor dara yor ay nit di len jangale da nga di wax jamono fi mi yaqku ak fi yaq yaqku tollu ku yor dara di jangale jamono ji rek war ngaa fexe boo jàngalee alxames ajuma nga dajale dongo yëpp leeral leen lan lan mooy mbirum wahabis lan mooy ibadu rahman yu mel bañ mën koo maytanu ko mu nekk seen esprit lu lu ko mooy buñ fa génne dañuy yàqu ku yor daara jàngale fexeel ba saa boo jàngal lu mel alxames ajuma nga woo leen leen ci jamono wax leen yàq-yàqu yi yàq-yàqu yi gën a rëy ci jamono nag mooy kuréel ibadu yi wahabis yi waaw yi gën a yàq diini ñooma Aboubacar a Chicago Chicago mi nekk euh, Niger te doon jiitu Boko Haram xam nga génn na wax na moom wax na loolu leer léegi fi mu bokk xam na ne Ibn Taymiya ay sëriñam comme seen Ibn Taymiya moomu ñu formé ak Muhammad Ibn Abdul Wahhab ak Albani nee ñooy seen sëriñ ci ngir moom la ñuy dox kon léegi leer na kon li ñu wax gën naa leer ci ne wahabis yi ngeen di seen ak seen kuréelu yi muy tajam xoog alfalaah ak euh, yëpp ay turaliste lañ saa bu ñu amee doole dañuy rey nit ñi amuñ sax amuñ si dama leeral ma ñaar manam yalla ñoru leen yonente bi ñoru leen dara lu baax ñoru leen xamul leen ñor seen poos yi ak jakk yoy nga xam ben sorolem ak ben khutba su wax naan ya akhi yi yoy kep buñ julé beusam sam naan loxo ak xeet yoy noonu sol seenu kopati sol yëre bu ndag ki bu gàtt lek rek nak nañ def lek ak nelaw seen jakk yep bo xam dañ koy saw alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh